waaye ca digg ba nga koy waxee fas naa yéene julli ne allahu akbar déedéet kooku du yéene allahu akbar ne fas naa yéene julli tusbaar déedéet kooku it du allah lii mooy yéene allahu nga fas ci sa xol ne akbar looy fas mooy fas naa yéene joox tusbaar ji fas naa yéene julli tusbaar ci joox mooy yaa ngi koy def ci waxtu leboo ko di ko fay waaye yaa ngi koy def ci joox waaye wala nga ne fas na yéene joox farata ala kulli alin yéene lay doon te julli lay doon al muayyana ba di buñ ràññe mooy wan wi salaati bayna hamzati wara bila taqaddumin wala taaqura wala taaqira yéene julli mu ngi ca diggante hamza ga mooy aliifug allahu ga ak raa ga mujj ci akbar ci diggante boobu ci la ñuy yéene wan bi salaati bayna hamzati wara bila taqaddumin wala taaqara ci lu dut nga yéexe ko waaye lu dut nga njëkkee ko boo ne allahu alif googu nga ne ah rek ci ngay commencé fas ci sa xool yéene doo ko wax ci làmmiñ da nga koy fas ngay fas yéene bi mën nga koo fas ba ba ngay mujjee wax akbar raagu mujj googu diggante boobu ci la ñuy yéene maanaam ci biir baatu allahu akbar daal ci la yéene di tàbbee fa in taqaddamahu fa bil kadir tabtulu fal xulfahu bi yazir su fekkee ne nag dangaa ne bismillah maa ngi fas yéene julli ba pare doo ko wax ne allahu akbar waaye jaxasewoo ko ak allahu akbar bi su boobaa sa julli googu wérut kon yéene julli allahu akbar ba danga koy wax ca biir ba ngay waxee allahu akbar kon yi ñu la limal daal mooy sun euh, mooy yi farataay julli te nag li tax ñu wax la ne farata danga ko war a xam mooy ne tey boo fàttee woon a wax allahu akbar lana la war boo fàttee yéene lana la war julli ga wérut boo jàngul fatiha lana la war ràkka booba danga koy sànni su doon ne nga am ñaari ràkka fàtte jàng fatiha ca ràkka bu njëkk ba sa rakkaab ñaareel boobu ngay def benn indi beneen fatiha ko saar daldi julli soo paree sànni rakka boobu sujjóot baada salaam kon baabu sax wi danañ ci ñëw danañ ca yàgg wax leen ku fàtte nangam looy def ku fàtte nangam looy def waaye dañ lay xamal farata yi ba pare doog laa xamal sunna yi ba pare doog laa xamal mandoo bi ñu xamal la ne farata deesu ko jàng la budda dañ koy indi sunna dañ koy jàng bu matee ñett wala muy mu akkada waaye itamit ngëneel duñ ko jàng booba lii yëpp dañ koy xam su boobaa ñu xàmme ko moo tax ñu limal la farata yi armal faratala la yow mi déglu bàyyil sa xel kàbbaru armal farata la yéene ba farata moo kabar ba ñoo lënkaloo ñoo ànd taxaw ba ngay taxaw di kabarit farata la faatiha farata la taxawaayam ba faratala taxaw jàng ko farata la ah su faratala mooy jàpp sa bëti woom sëgg ba sa ndigg tàlli loolu farata la siggi ba farata la sujjootit wax naa la ni mu mel farata la siggi ba faratala la ah ba pare dalit farata la tey tamit nga toftale diggante farata yi sëlmalit farata la jotaay ba ngay toog jamono ba ngay toog di wax ba ngay wax asalaamaaleykum toog bi nga toog farata waxuñ toogaa yi taaye ba nag tayyaatu lillahi ba ba muy jeexee loolu bokkul ca farata ba waaye asalaamualeykum ba ngay àggee ca aleykum ga diggante bi nga toog noonu farata la boo taxawoon wax asalaamaaleykum sa julli wér kon yii mooy farata yi ñu doon indi ci julli nga bàyyi sa xel te nga bàyyi xel ne wax naa la ne farata duñu ko jàngee lu dul ñu indi ko day mat a sunna ya nag yii ñu lay limal mooy sunna ya liqaam mooy góor day liqaam jigéen du liqaam góor day liqaam liqaam ba sunna la saar wa ngay jàng gannaaw bi nga waxee fatiha ba mu jeex nga àgg ci wala daalina sóora boo mën a jàng jàng fatiha wala aaya boo mun a jàng ci alquran gannaaw fatiha sóora boobu sunna la taxaw ba ngay taxaw jàng fatiha ba ngay jàng fa sunna ba ngay jàng saar wa wala aaya ba taxaw bi ngay taxaw di ko jàng boobu sunna la yelu ci fu ñu war a yeloo mooy jàng bi ngay jàng ndànk te kenn du ko dégg mooy jullik tusbaar ak tàkkusaan yépp dañ leen di yeelu timis ak gee ak fajar suba mooy suba yépp dañ leen di biral mooy dañ koy jàng ca kaw yeelu mooy wax ndànk kenn du la dégg biral mooy wax ca kaw ñu di la dégg yeelu ci palaas bu ñu war a yeelu muy waxtu yi ma la wax ak ñaari ràkk yi topp ci gannaaw jullik ñeenti ràkk muy gee ak timis boo jullee ñaari ràkka beneen ràkka bi ci topp faatiha bi ngay jàng da koy yelu kon yelu ba ngay yelu foofa yaa ngay def sunna waaye biral ci waxtu wu ñu war a biral mooy jàng ci kaw ci waxtu wu ñu war a jàng ci kaw loolu it sunna la wax ne assami allahu liman amida booy siggi gannaaw bi nga jàppee sa bëti woo mi rukkoo booy siggi wax sami allahu liman amida sunna la allahu akbar yi ngay wax booy sëgg ak booy rukk sujoot ak booy jógaat di taxaw baatu allahu akbar yooyu ngay wax yooyu yëpp sunna la ndare bu njëkk ba nag boobu moom faratala la euh, euh, boobu farata boobu bokkul ci sunna yi taaya attahiyaatu lillahi zakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu alayka ayuha nabiyu wa rahmatullahi wa barakatuhu assalaamu alayna wa ala ibadillahi saalihin wa ashhadu an laa ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu loolu mooy taaya loolu farat sunna la bokkul ci farata toog bi ngay toog di ko jàng ci toogaay bu njëkk ba ak bu ñaareel ba yépp farat sunna du farata sunna la yan jéggal ma ci njuumte yi sunna la ñuy lim taaya sunna la toog def ko sunna la njëkkee faatiha doog a jàng saara suura loolu sunna la waaw sëlmal baatub asalaamualeykum bi bu ñaareel bi sëlmalu ñaareel bi ak bu ñetteel bi parce que asalaamualeykum bu njëkk bi euh, loolu sunna la euh, loolu farata la waaye bu ñaareel bi parce que boo ne asalaamualeykum geesu ci sa ndeyjoor ne asalaamualeykum geesu sa càmmeñ asalaamualeykum bu ñaareel ak bu ñetteel bi yëpp kooku sunna la dégg nga loolu li maamoo mi wal jaxru ak euh, yooyu ci ñoom la doon ci sunna salaatu ala nabi mooy julli ci yonentu bi gannaaw taaya ba sunna la sujjóot ci ci sa bakkan ak ni ma la ko waxee sa peti tànk yi ak sa bëti wóom yi euh, ak sa ñaari ndëggu yi nga sëpp ko ci suuf sunna la samp saatir mooy samp loo xam ne ku ko gis du jaar ci sa digganteeg loolu day jaar ca kanam loolu waaye taxaw rek nit ñi di jaar ci sa kanam yow am nga ca cër nit ki jaar ci sa kanam am na ca cër sunna la moom la gën a néew mooy lu tollook fii one mita